ba pare moom mooy ni dañu président Macky depuis 2012 ci ànd boobu noonu nag ki nga xam tey lañ ci mooy nekk suñu bunt nekk suñu xarit nekk sama nekk sama xalifa ci liggéey sama dama xam-xamam ko compétence am ko nag bëgg Sénégalam jàpp ko patriotisme mais jàpp ko éthique moralam ci wàllu politique waaye nag ma jàpp ko parce que doomu Sine Saloum la dëkkee fii ci Kaolack ma ànd ak moom ci boobu bi ma ko defee dama koo seetlu bu baax te nit ñi may wax xam nañ fi ma ko teg ndax du def dara loo xam ne dama ko teg ci hasard ndax yaakaar naa ni def naa ay at politique parce que depuis en 1988 ba may def troisième secondaire ba léegi maa ngi politique jiite fii ay structures yu bëri ay ndaw yi responsable départemental de zone de membre du comité central LD quand en 2006 bi may bàyyi j'étais choisi comme membre du comité central de la LD donc pratiquement aw woon sax 30 ans donc pour war na ne ni yàgg naa ci politique combat yëpp du ma ci del siwaat wax Pape Samba wax pour ko léegi discours préliminaire bi pour voir tout simplement que ni ànd bu yàgg la mais nag de toll ci lu ñu wax politique dañ koy contextualiser tey jii li xam moo am ci bi am ci biir Sénégal dañoo gis ni

parti bobu mëna représenter Sénégal mais représenter dignement euh, parti euh, euh, parti yi nga pour que élection du coalition des Sénégal ces grands partis ni mako jappé Nous moy ni Aprodel dafa bokk coalition benn bokk yakar liggéey ci sonu ci ñak ci xex buñ sumu ñu Nous ñu ne japp na jot na fu coalition si vous mais nañ anti-organique dans la paix pour nous continuer le combat au niveau de la paix c'est dans ce sens c'est effectivement dans ce sens que nous avons jugé nécessaire de fondre la paix la PRODEL dans la paix pour en faire une entité organique organisée un grand parti un parti fort et continuer la massification au sein de la paix mais en même temps accompagner le Benno Bokk pour les victoires futures loolu xel mun na ko dégg xel mun na ko dégg parce que ànd ben Macky Sall ku nekk xam na nu mayewuñ ci bopp rocci lamiñ te liggéey bi muy liggéey Sénégal yi teg nañ seen bopp travail bi mu xam ni abaatu ko sept ans yi nga xam ne mooy premier mandat bi ku nekk xam na ni teg na Sénégal si les rampes du développement ñu yaakaar nag ni jot na fi mu nekk nii que tous les partis yi nga xam ne ñoo koy jàpp commencé si ñun ñu fexe ba def ces partis ces coalitions des réalités politiques vivantes pour que effectivement ñu mën a nekk nag le combat bi au sein de l'APER, mais dans une structure organisée C'est moo son choix choix avec madame la Premier ministre madame la présidente du conseil économique social responsable de paix. à partir d'aujourd'hui nous allons vous remettre notre récépissé vous dire que c'est à partir d'aujourd'hui le parti va fondre dans paix pour rejoindre le président Macky pour continuer le

puis nga les objectifs du parrainage des nga ko comment commencé au fond Nous nañoo dem depuis campagne du parrainage Nous avons vraiment taxaw bu am solo liggéey ci liggéey bu am solo ba le huit triomphe Nous ëlbateku dem ci élection législative nga xam ci sa tànk tubéy comité électoral ne ci quartier bi ci département Nous ba indi sa contribution gazalika ci élection présidentielle du président kon ñu ngi lay remercier ci turu président de la république son excellence Macky Sall ci sa contribution bu wër bi nga xam ne def nga ko indi ko pour puisse avoir une grande victoire ici à Kaolack et dans le département. yow li nga wane ci wàllu taxawaayu politique mooy politique doo wutal sa bopp ndax defe naa ne sa nomination te nag ma leeral foofu di nga taxawee ci suma du taxawaayu politicien ndax gis ngeen ne bu fekkee ne am na ay activités yoo xam ne dafa soxal askan bi des activités sociales yaa ciy jiitu ñëpp représenté ko moo xam ci inondation yi moo xam ci école yi moo xam ci jàppale groupement yi loolu aussi ñun dañ koy soxla ndax boo tuddee conseil économique social et environnemental da nga war a am ay conseils yoo xam ne seen xel xarañ na ci loolu de ku gis APROFES xam ne yow sa xel.

ci les activités du conseil De la bisi bi APR di la dalal di la wax à partir d'aujourd'hui tu es un membre entier de l'alliance pour la république di la ci dalal di la ñaan ñaan yàlla bu doon da nga am ci ay yu bare pour l'intérêt des populations de Kaolack pour l'intérêt des populations du Sénégal maa